bienvenue dans votre entreprise. Troisième, menuiserie métallique Mansour. Vous voulez des portes, que ce soit en fer, aluminium ou encore en inox, veuillez vous rapprocher à la menuiserie métallique Mansour et nous vous proposerons différents designs. Il y a un pour la mer. Vous pouvez également commander votre design de choix. Menuiserie métallique Mansour vous satisfera. Prêtez-nous une oreille attentive. Nous lucide le Vous voulez des rampantes d'escalier des garde-fous, chambres à coucher, mini-salon, wala et plateau télévision notre entreprise troisième fabrique tout ceci wax nañu leen ko ca ba muy teel de boulet toujours copier mais jamais égalé Wow, maa la ko pire menuiserie métallique Mansour Ben la fi, nous sommes installés à Thiaroye Tally sous le pont en face de pour plus d'informations veuillez nous contacter au 77 404 83 94 ou 77 975 75 95. Menuiserie métallique Mansour, la qualité, notre force. mooy Niass opération kooku mooy kan kooku mooy mooy Niass man nag damay féliciter parce que lii ku ko man wax yaa ngi liggéeyal parti bi kon Mor Niass ak jigéen ñi ma àndal ñëpp Mor Niass ana Mor Niass waa Mor Niass ñoo woo bu ma paree ci Mor Niass ah, kooku mooy opération économique bu rëy nekk ci Djidda Thiaroye di liggéey liggéey bu am solo waaye Mor Mor parti bépp ñoo ànd bokk ndey ak baay ñun ñëpp suñu bokk ndey ak baay di xàccandoo di dóorandoo day dox kon Mor Niass la di Djidda Thiaroye Kaw. Mor Niass ah Niass kooku mooy borom. ci de caaree kaw maar maar moo taxaw waa caaree gaar caaree gaar ñoom ñëpp ah waaye nag kon war ngeen ma cee boole man kon war ngeen ma taxawu ma nit gisaguma dara de lii lépp ci Mor Niass. organisation bu rëy bi. waaw lii mooy yëfu Karim waaw ndaje bi ñu def euh, mi nga le secrétaire national chargé des structures du parti et euh, des mouvements de soutien euh, ginnaw ba mu une tournée nationale sur la mobilisation et la vente des cartes du parti dem na ci 45 départements yi nga Sénégal ba mu ñëwé un dafa au mouvement de soutien mouvement de soutien pourquoi mouvement de soutien parce que ce sont les mouvements de soutien du président Karim Meïssa structure bo xamna la ay sympathisants nit ñoo xam ni dañoo bëgg président Karim ay nit yo dañoo bëgg le président Karim Meïssa le def ko cinquième président de la République du Sénégal créer ay mouvement de soutien pour soutenir ko donc mu nekk structure bu légitime bu nga mu ci dans dans le parti mu nekk structure qui xamne bu am ci parti bi parce que en 2012 ba nga xamee ne dañoo le pouvoir mouvement de soutien ñoo taxaw mu taxaw massifier le le parti bu won mouvement de soutien ba ñaké pouvoir bi li dal parti social daf ñuy dal dañuy day nek parti bo xamné day naxassay stratégie biñ tek d'abord d' def constat PDS xalu ndéef la il suffit nga upp ko rek mu boy Wad a toujours eu son électorat L'électorat du président Ablaye Wad représente 35 euh, de à l'élection à nationale donc Wad, déjà mom, il a son propre électorat en plus nous avons encore les mouvements de soutien euh, Karimisme. La Macky Sall seule victime c'était le président Karim mais aujourd'hui malgré son absence dans ce pays il reste un leader charismatique qui draine qui draine du monde Les ku ko euh, Karim et le candidat du peuple Les ko Karim c'est l'espoir du peuple donc dans le cadre de la massification euh, suñu suñu suñu candidat le président Karim Meïssa moom moo yor pour luy élaboration ak organisation du parti au au niveau de euh, euh, du secrétariat national. bis bu Macky Sall taxawee pour empêcher candidatures candidature Karim du je bu keroogee du parler. palais parce que nous fekk ñu ne dina fekk nous organiser ne dina fekk partout euh, au niveau national Nous xam nu parce que Macky ku ko gis xam pouvoir jaral na ko bakkanam mais nous fii fait. ce fekk lii am ci problème Ousmane Sonko bi y a ñun ñëpp xam nañ ne xam nañ légui faire góom xam nañ fu fu fan lañ koy oké ba mu ba donc mom bu mu sax troisième mandat bu mu xalaat aussi empêcher la candidature du président Karim parce que 2024 Karim sera candidat par A ou B. donc loolu ce que veut dire que yéen kon pare ngeen pour Karim Wade day ñëwaat kon. si il a son agenda politique il a euh, véhicule de campagne ñëw na on a plus de 45 véhicules il a financé euh, une tournée nationale le chargé de mission de 45 départements dans ce pays il a rencontré rencontrer les mouvements de soutien xam nga il a son agenda politique na a xaar Karim mu ngi a te su politique.